Assalamu alaikum. alors dites-moi alaikum. dites-moi on est sur euh, force citoyenne ou sur euh, ou sur euh, Maïmouna Bousso je sais pas Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bonsoir des amis. On va faire euh, un petit live, pas trop long s'il vous plaît, parce que Ramnani Goudina, je m'excuse déjà de d'improviser comme ça, mais c'était pas possible de ne pas parler. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on éclaircisse. <laughs> je vois ma sœur Manfal toujours active on va faire un petit live hein, pour faire ben, une mise au point Bunda sur euh, la visite euh, et le, contenu de la communication du président aujourd'hui à Kermassa. Et puis après, Dinanu Diel aussi, hein, deux habitants de Kermassa, le frère euh, et puis euh, une dame, pourquoi pas, hein, une dame. Maï Diop, j'ai vu que Amnalo Degungane d'une Fadjorek voilà donc suñ de def loolu de navarre comme ça nous avons des réactions de ce qui se passe hmm? donc euh, nous sommes loolu des may nous juste me partager ma guise live ba et puis ma partager quoi après on démarre ok donc on est là partager sur une page voilà là Voilà. Voilà. Hein? donc assalamu alaikum. Hein ngi n'y a di ziar di en français Abou Sissé. Abou je vous promets quelque chose ce week-end je vais faire un live euh, spécialement en français, parce que je, vais m'adresser à des gens comme vous, mais aussi je vais m'adresser à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc euh, je vous promets de revenir sur ce live qui sera exclusivement en français. Voilà, parce qu'on a envie que tout le monde comprenne. Non, mais là, voilà, je vais juste essayer de faire un peu de Wolof français, là, comme on fait d'habitude. Euh, mais plus en Wolof quand même, parce que comme sujet d'actualité, là, askan wi li ñuy dund depuis deux semaines euh, il y a quelqu'un qui dit désolé nous ne sommes pas des français on peut aussi parler en français hein il n'y a pas de problème moi je ne suis pas wolof non plus hein et je parle wolof <laughs> je suis hein. À vous, Sissé, vous vous vous dérangez pas dans ce week-end inchallah je ferai un live où, euh, où on parlera exclusivement français je vous donnerai rendez-vous parce que c'est extrêmement important voilà merci merci monsieur Sissé donc voilà donc c'était juste pour faire un petit live Euh, xamante ne vraiment hein, pour wax ci euh, visite du président Macky Sall Tahiti, euh, ci ci banlieue bi ñu ngi ko doon xaar depuis deux semaines depuis deux semaines les populations ñu ngi ci désarroi ndox mi bare ñu koy xaar moom en tant que njiitu mi donc tey mu décidé dem aussi on a on a suivi de près hein, la visite parce que lu ñu lu ñu ñor la on attendait aussi des décisions fortes parce que c'est loolu moom la ñu

Euh, dañu ragaloon ne ñu def ay manifestation gisuñu sax président euh, ñu bëri ñu ngi ko doon xaar ci seen jafe-jafe mu ñëw fa egsi ak ñoom comme ça ñu sentir ko ah ñu sentir ko mais gisuñu ko ci ndox mi ah mënoon au moins solidariser un peu ci askan wi li ñuy dund depuis jamono yi mais je crois que lolu quand même du du surprise hein. waru len bête parce que depuis deux semaines yéen ngi ci ndox mi nek ci jafé jafé yi te président ñëwul set si leen dañuy wax rek ne li nga xamante ne moom moo ñu moo ñu choqué ñun ci loolu lañuy taxaw ci discours bi ci contenu bi ci promesse yi ak aussi ci ci li nga xam ni moom la ñu jàpp ni itam moo war a nekk benn taxawaay citoyen bu war a am en fonction de suñu njiit ñi bu ñu bu ñu bu ñuy xaar ci ñoom dara gisuñu ko askanu Kër Massar am nañu lu leen bett Euh, ñun askanu Sénégal itam am na nu ñu ko jàngatee gis nañu ni am na benn partie askan boo xamante ne seen maire mobiliser na leen pour ñu ñëw euh, euh, dalal président Macky Sall ah dañu am tamit loolu lu ñu ci metti parce que quand même même su fekkente ne xam nañu ñooñu peut-être du ñu dëkk ci biir ndox mi quand ay nit la ñu dëkk Kër Massar ñu ñëw mobiliser leen pour ñu ñëw di tàccu ak pour ñu ñëw di di di di di di xàllal président Macky Sall alors que seen ay moroomu sénégalais ñu ngi ci jafe-jafe yoo xamante ne yàlla rek moom moo ko moom moo ko xam président Macky Sall tey demam demam ci biir banlieue bi demam ci ci ci Kër Massar su ma ko jàngatee li may njëkk a gis mooy ne dafa mel ne état amul dafa mel ne état dafa amul euh, parce que bu fekkente ne yow da nga da nga nekk chef de l'état dëkk bi am armée dëkk bi am gendarmerie dëkk bi am police ñu am ay ay ay gouverneur ñu am ay préfet ñu am euh, arsenal bi état war a am yépp jàpp naa ni euh, waruñu xaar président ñëw deux semaines après pour ñu joog wax ne joxe nañu ay yoon pour que ñu génnee ndox mi parce que pour ñu génnee ndox mi c'est-à-dire que Euh, président daal bu ñëwul taxaw rek yeneen corps d'état yi amul existé wul ñun am nañu respect trop vraiment ci suñu administration ci sunu ci sunu l'armée ci sunu ci sunu euh, nu mu tudd euh, sapeur pompier yi nga xam ne gis nañ leen ak croix rouge def nañu ba def lu ñu mënul def mais quand même état tamit bagage la quoi état ay nit ñu bari du benn nit du ñaari nit waroon nañu mën a sentir état bi depuis fan yi

dañu aménager benn site bu set dugal pour président ah police ak ak ak ak ak ak ñi nga xam ne sécuriser lieux yi ñu bloqué ko gis nañu sax am na journaliste yoo xam sax mënuñu accéder accéder foofu waxatuma ak population donc président Macky quand kan la demande seeti Kër Massa, demul cette population yi que dans le dans le désarroi parce que bu fekkee da nga jóg yëkkati la république pour dem ci gox pour dem seeti ñi fa nekk mais soit da ngay dem fi problème bi am wala nga dem ci ñi am problème mais boo demee foo xamante ne dina ko defaral ba mu baax nga taxaw fa yow ak sa maire yow ak sa directeur de l'ONAS doo ko comme kon moom mënoon na bañ a loolu mënoon nañ ko def au niveau palais mënoon nañ ko def feneen ak feneen lu tax ñu délocaliser ko def ko Kër Massar te demuñu fi Kër masaar fa am problème demuñu fa parce que ña fa nekk gisuñu leen. image yi wane ko fi ñu ko wane gisuñu ko ci ndox gisuñu ko ci gaal gisuñu ko ci ci ci ci Zodiac te fan yii yëpp zone yooyu ku amul ku amul euh, euh, Zodiac amoo gaal munoo faa dem gisuñu ko ci bateau munoon na sax wut nga di bateau yéeg ci walla kat-kat yooyu nga xam ne suñuy xaalis la jar ay milliards mu dugal ko ci ndox mi mais loolu yëpp defu ko dafa dem foo xam ni euh, daw daw te sax mag sax dafa daw làqu ci benn ci benn bërëb. lolou nak dañ ci wara am jàngat buñ ci wara am itam faut pas que ñu ñu fokk ni rek tout est euh, euh, tout est euh, nu mu tudd tout est noir wala tout est blanc acte président Macky Sall bu mu tek rek buñ ko jàngatee dinañ am luñ ci am parce que ragal a ragal askanam parce que là on a vu un président qui a peur de sa population un président qui s'est barricadé ci ginnaaw ay tante donc askanu Kër Massar bu len bu len xof bu len am lu len metti bu leen am lu ngeen di regretter parce que président Macky Sall dafa wane tey ni ñemewu leen parce que ñeme ñàkk ñeme sa askan weesuwul nga ñëw ànd ak say garde du corps ànd ak police ànd ak kaaraange àdduna bi yëpp mais ñemewuloo dugg ci biir askan wi ñemewuloo jaxasoog askan wi pour temps élection bu daan jot nii ak yooyu day dem dugg ci biir yéen dugg ci seen biir joxante ngeen loxo waxtaan ak yéen ah jox leen sax ay ay def ay meeting mais tey gis ngeen dafa mel ni ku leen seexlu dafa mel ni ku leen seexlu parce que tey dafa ñëw dem taxaw fële nga xam ne amul ndox amul xeeñ amul dara au sec ah def discours am daa di daa di dem daa dem yoonam donc li ngeen ci war a jàngat mooy euh, wane na ni moom euh, xeeb na leen wane na ni moom seexlu na leen ah, wane na ni moom moom moom moom ñemewu leen sax far parce que ragal seen ay yuuxu ak ragal seen ay manifestation motax mu mu mu làqatu ak meram ak ñi mu àndal ci ben ci ben tante donc lolu da ngeen ci wara da ngeen ci wara jangat da ngeen ci wara jangat ne euh, vous avez quand même euh, le pouvoir ci seen ay loxo ah hein? wa vous avez le pouvoir am na ku ne xëy dafa ragal munul munul fey mais bu munul fey tam en tant que président euh, war nañ ko mën a ay ay ay pexe yo xamni dina jege askan wi wi nekk ci ndox mi jegewul askan wi mais jàngat leen ci askan wi rek ne bu leen xaar président Macky Sall ñëw ci yéen pour ngeen réagir pour ngeen réagir ak pour ngeen teg ay action parce que nag wax dëgg yàlla euh, ñun euh, bu ñu amul tamit ay milliards amuñu itam ay ay jafe ay ay possibilités yu ñu leen jàppalee naqar bi dañ koy bokk ak yéen ak xeex bi ñu bokk ko ak yéen euh, ak ak ak li ngeen di dund ñu ngi koy dund ak yéen waaye itam nag Euh, dafa am loo xam ni yéen a ci war a jiitu yéen a ci war a jiitu yéen ñi ne ci biir ndox mi nekk ci jafe-jafe yi wax dëgg yàlla yéen a ci war a jiitu askanu Sénégal fekk si leen si keneen nag keneen fekk si leen si voilà bu ngeen ci bu ngeen ci jiituwul ah nit ñi tamit mu ñu leen ñëw forcer leen pour ngeen fippu forcer leen pour ngeen xeex hmm? parce que loolu aussi dafay mel na euh, dafay mel na comme euh, nu ñu koy waxee te sax

dañu amul chance mais président bu ñu doon wax ne bu doon làmb la dafa mel ni tey dafa def trois appuis benn bi ci des pour mu daanu barewul malheureusement peut-être boobu mooy lii téye mais tey dafa def trois appuis ci euh, visitu Kër Massar bi ci point boobu. beneen beneen bi nga xamante ne itam il faut ñu taxaw ci mooy président tey dafa jël ndogal ne day yëkkati lu mat ci treize milliards ñu joxaat ko ONAS pour pour pour euh, pousse jàppale ko pour mu liggéey.

maintenant j'ai décidé maintenant à partir de là euh, de défendre Massar département monsieur le maire war monsieur le maire parce que le président est na yow amoon parce que c'est ça que ça veut dire yaa ngi ci ay jafe-jafe ñu pour voir nan la régler problème bi le président un homme. yow un dara d'Arali. tu es impuissant devant ça xool ba xool mais defaat fii daal euh, département daal mooy solution bi mais yow yow yow monsieur le maire à partir d'aujourd'hui tu dois même plus prendre de salaire de de de de de la de la de waa Kër Massar waratuñ la fay yow président président euh, euh, dafa saga sa communauté mais daf la ci boole waale yow monsieur le maire daf la ci le waale parce que monsieur le maire yi waroon nangu président ñëw ci biir sa commune ba génn wanoo ko ndox mi fu mu nekk wa wanoo ko ndox mi fu mu nekk dugaloo ko ci ndox mi fu mu mu wëlbatiku ne la moom foofu daf koy def léegi léegi département seet na ba set loolu mooy solution bi monsieur le maire yow waa Kër Massar ñoo la fal yow dañ la fal comme ni ñu falee président Macky Sall président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko fal yow waa Kër Massar ñoo la fal ñoo yëkkati seen i carte xobbet xobbet fay la yow war nga nangu loolu loo xamante ne da ko ko demandé woon en 2016 mu ne la defal nga ndànk toogal du c'est pas le moment boobu ba léegi lu ne am na waxu ko tey nga ne ñi ñi nekk ci biir ndox mi mu dakar jàkkaarloog yow nela, nela Nela la dakar département solution solution monsieur le maire quand même un peu de décence quand même gis mais là waratuloo génn ci plateau télé di wax parce que le président daf la rendi daf la scotchel droit à la retraite daf la ni demal nga tu es impuissant dans ce problème là à ko régler amoo à amoo solution. man dinaa ko lijjanti mooy dina créer dinaa ko def département tout en sachant que Kër Massar kese mënu tëb tëb nekk département moom ci boppam. moom ci boppam mënu mënu nekk département il faut ñu nga xool yi ko zone yi ko wër yëpp nan la ñu koy rattaché loolu yëpp wan ko dañ ko war a lijjanti dañ ko war a xool beneen mbir mi mooy euh, lenn de wax na ko wax dëgg yàlla lu baax lu baax loo xam ne vraiment président ñu lay féliciter. te dina demander nga continuer ci lancer boobu moy nee na à partir de maintenant buñu joxéti joxeeti benn permis d'occuper ci zone yi nga xamante zone yu am inondation la nee nañu nañ dimbalé état bi ba nga xam ni lépp loo xam ne ay affaire parce que néna budul bu dul loolu day mel na ñii di gas ñi di suul donc loolu baaxul néna nañu arrêté loolu mais président loolu bi ko waxé vraiment acte bu baax la mais acte bo xamante wax deug yalla itam mais mais ruslu na parce que parce que parce que du massa du maire bi kese moom mooy joxe ay ay ay ay autorisation monsieur le président maire moy yow nekkoon nga maire met maire Fatick xam nga ni le maire moy la dernière personne buy intervenir ci affaire autorisation le moy la dernière personne yeneen service yi ana ñu ñoom impôt et domaine yeneen service nga xam dañ ci am compétence ñooñu do wax ak ñom mais encore une fois monsieur le maire président daf la toroxal lolou moy deug président daf la toroxal toroxalale sa askan toroxalale wa keur Massar gi yëpp ñepp la boole toroxal ci ci acte bobu mu wax. ok baxna lolou loolu nañ ko appliquer buñ nous ko mëne appliquer ñun on l'avait demandé la semaine dernière que buñu joxé ci autorisation benn lieu ñu diko du tabax mais pour président il faut aller au bout de cette logique. affaire bi du keur Massar kessé lañu wara arrêter di joxé ay autorisation de construire hein? même dans la capitale là il faut arrêter ça parce que xam nga lutax euh, capital bi bo régler ce problème mais problème dang koy décaler ci banlieue bi problème bi dang koy décaler ci banlieue bi donc yow yow ñi nga xamni ñom autoriser ñu tabax ci corniche c'est la même chose ñi ngay autorisé ñi ngay autoriser ci quartier c'est la même chose parce que ñu ñep dañuy défar ay égout égout yoyu day pousse di dem des géej di di refouler donc les les interdictions de construire là ça doit être sur toute l'étendue de la capitale sénégalaise Dakar fekk amuñu benen ville fekk trouvé wuñu solution ken warul tabakh Dakar munoo cibler rek keur Massar kessé parce que parce que da nga yàpp euh, ki ki fa nek muy muy monsieur le maire parce que momo lako may momo lako may nga ñew euh, xol fi nga xamni ne moo la arrangé nga def fa sa tante mu dalal la fofu hein comme si tout va bien duggoo ci bir askan bi momo lako may donc loko def rek moom moom mérité nako askanu keur Massar nak mérité wuñ ko gis nañ tamit jeunes yi wax deug yalla ngeen ne euh, dañ leen a tëj ci ay kër wàccee fa police yi ba nga xam ni munu leen euh, dañ ngeen manifester euh, vraiment ñu ngi koy naqarlu parce que amoon ngeen droit au moins xool mbubba président Macky Sall xool lu mu sol ba mën koo gis gisu leen ko ñun ak yéen a yem ci ñoom parce que ci télé bi ngeen ko gisee comme comme ñun <laughs> donc loolu vraiment c'est désolant mais ñu ngi leen di demander itam yéen jeunes wu Kër Massar yi mais bu ngeen bëggee wone seen fi ngeen toll mu jarul ngeen di xaar président ñëw rek pour ngeen def ko am na yeneen yeneen canaux yu ngeen mën a jaar boobu ba léegi mu ngi bëgg a yàgg ñaari semaine ngeen di xuus ci ndox mi oh, eh, wax na wax na ne dina génne trente milliards mais il a bien dit que trente milliards yi tamit du Kër Massar kese nee na c'est national loolu itam bëgg nañu ñu xam est-ce que réellement trente milliards bi pour euh, département Dakar bi la ah pour région de Dakar bi la wala pour euh, wala pour Kër Massar wala pour Sénégal gi yëpp loolu dese nañu dese nañu leer donc vraiment euh, euh, waa Kër Massar li ngeen dund tey ñun ñu ngi ko doon xaar ñu ngi ko doon xaar mais nag wax dëgg yàlla xalaatee wuñu woon nag ni président Macky Sall euh, ragalee woon na nii parce que gisoon nañ ci moom benn njàmbaarte boo xam ne dernière fois bu muy dugg ci banlieue yëpp duggee wu ci woon ni foogoon nañu ni wax dëgg yàlla di dina dina am courage wàcc ci terrain bi même bu dee sax benn kër sax même bu dee ay bot yu ñëw ba ci genou bi nii sax lay sol sax xaw xuus sax jéem a xuus xuus lu wone ni mu ngi ci côté ndox mi sax mu wone ko mais furaas furaas euh, man nak vraiment dama concerné wu ci li am mou may metti lol mais dama jàkkaar ni war naa mën ñu dëkk Kër Massar ñu wax ci joxe ci sen xalaat parce que ñom ño gën a concerné parce que ñom ño gën a gën a xam li nga xam ne moom la dund hein donc euh, bu fekkente ne ah billaay billaay Diop mi nee na commence à décomposer décomposer oui oui oui parce que gis nañu ni mu ni mu ni mu verté bon produits mais quand même mais président xana yow état bi président qu'est-ce ci mais quand même l'absence de premier ministre ah. parce que parce que yow état état yow yow depuis deux semaines bu président djogul ken du amul possibilité jënd produit phytosanitaire ken amul possibilité pomper néna dinañ pomper mais deux semaines après ah deux semaines après mais lolo lolo lolo quand même mais mais kon fii fii lan moo fi quoi n'est ñu ko wax vraiment état du Sénégal mu ngi ñuy bëgg a jaaxal nag mu ngi bëgg a bu parce que ñun mun nañu wax ay incompétence au président Macky Sall mun nañu wax ay compétence incompétence au régime am mun nañu wax ay incompétence ñi mu mais état du Sénégal quand même pour na fi xarante état du Sénégal pour na fi xarante nous, on ne sent pas l'état du Sénégal te tey le président Macky Sall bi daf ñu gën a ñu gën a jaaxal ñu n'y a en réalité dara fi parce que même pour nous pomper nous mi euh, désinfecter ko il faut au moins wax mais où sont les autres services compétents voilà donc pour ne pas tarder et pour ne pas monopoliser trop la parole euh, euh, live du Goudou. Hmm, donc ñu jox sunu benn frère mu wax ci xalaatam Moussa je t'appelle am na kenn sànq euh, Mia Mia est-ce que da nga bëgg a wax ci affaire wéccet bi allo allo. waaw waaw Moussa yaa ngi ci live bi. ah d'accord ça va na ngeen def. ça va ça va. waaw Maïmouna dama ci bëggoon participer tuuti rek c'est vrai je ne suis pas exactement à Kër Massar. Mhm, mais yaa ngi fa am sa euh, famille ak sa mbokk sama waa kër a ngi fa et cetera. oui voilà zone bi ma dëkkee nag. man mhm. rue bi ma nekkee bon inondé wul. Mhm. mais kër yi nekk tout aux alentours. Mhm. fépp dafa inondé. yaa ngi dégg te léegi ça fait euh, pratiquement bientôt deux semaines deux semaines léegi nii ndox maa ngi fa. xam nga man li ma njëkk a jaaxal mooy. foofu euh, boobu ba léegi damay laaj suñu waa kër ñu ne ma ba léegi nii gisuñu kenn. Mm-hmm. amul benn service bu fay ñëw di pompé ñoom daal gisuñu kenn boobu ba léegi donc c' est des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes mm-hmm. ah ñu nekk noonu ci ndox bi boobu ba léegi solution amul te man li ma jaaxal da ngay xool télé bi ñu ngi wax ñu ngi def ay reportage et cetera bañ naan Macky Sall ñëw na fa tey mais lu toll ci deux semaines boobu ba léegi kenn taxawu fa man wax dëgg yàlla loolu daf ma jommal daf ma mm-hmm. jaaxal waaw may laaj nag ana les services de l' état ah xaw ma ONAS bi ñuy wax ak

Mais ça fait depuis combien d'années ça commence c'est c'est récurrente donc pratiquement chaque année y a une ampleur bu mu jël euh, non aussi les années passées mhm. mais je dis souvent si rien n'est fait en tout cas il mhm. faut s'attendre à vivre pire que cela mhm. parce que si tu lu toll li Kër Massar sax protocole bi bi waa di def sen discours Il y a à peu près 500 000 habitants mais je dis peut-être même il y a 1 million 1 million 500 d'habitants Mm-hmm. Et si tu vois tout Kermassa, tout a été construit. C'est des R plus 1, R plus 2, R plus 4. Dès que partout ça a été construit. Et il n'y a aucune canalisation. une mm-hmm. canalisation Donc il y nan lañ gens a des ci ci périmètre bu toll noonu nga xam ni c'est pas. Allô allô Je ngi des je maa ngi lay dégg voilà donc voilà donc man je pense que. Mhm. Euh, dem fofu di distribuer ay ceeb wala di maye xaalis. Mhm. du loolu du loolu la waa Kër Massar soxla. waa Kër Massar li ñu soxla mooy des des des ñu ñëw régler ces problèmes là de urgent. Mhm. ay pompes yi manque affaire yi comme ni ma allô oui oui maa ngi lay dégg fais coupé parfois hmm. oui. ok voilà donc je dis solution nous nous nous devons mettre en place un projet d'assainissement Disons nga cœur massal Yëmbal Thiaroye toutes ces zones là li ñu soxla moi un grand projet d'assainissement qui met en place des canalisations il y a un moment d'évacuer évacuer les eaux des pluies mhm. y a que ça y a que ça comme solution voilà si on se ko les années à venir ça va être voilà c'est ça le problème ay nit nag dañu rey seen bopp tabax seen i kër ba pare mhm. ah dëkk fa bay am yaakaar nga ñëw ñu ne la taw bee ko nangu te dara waral ko lu dul la négligence de l'état mhm. voilà mhm. voilà loolu daal la mon ci ni ma koy ci ni may wax merci merci Moussa contribution bu am solo la merci c'est gentil waaw d'avoir partagé waaw voilà am na sànq ku joxe numéro bu fekkee mën na ma ko bindalaatal vite fait ma woo ko parce que nee na dafa bëgg a dafa bëgg a participer hein, donc euh, Mang, excusez-moi wu hein, auprès de beaucoup de gens parce que euh, am numéro Tigo bu ñu joxe ci euh, page bi euh, donc la ñuy di ci participer ci live bi mais bon ngeen comprendre demain dama am encore ko ranger je ne le trouve plus mais Dinako ko reprendre Fanny, voilà donc comme comme habitude aussi a deux trois téléphones dafay xaw a metti donc l'ol moo loolu moo waral mais très bientôt Dinako Dinako reprendre C'était juste pour jëlaat keneen am na ku doon wax léegi ni dafa bëgg participer ba joxe numéro. Euh, bëgg nañ ko jël itam pour xom noonu la ci xalaat am na ñuy wax itam am na xaalis suñ fa joxe tey ay weccet euh,

di bañ itam yenn yi parce que lii toroxal weesu ko mënoo nekk sénégalais ñu kenn ëppale ci bu élection jotee ñu ñëw seet si la dugg ci sa biir ay kër jaxasoog yow nga am nga am problème ñu toog di la seetaan dugg ñu sax ci sa biir kër xooluñu la visité wuñ la et puis am na ku wax sànq mu ne dañ leen wax circuler y a nga dëkk ci sa gox ñu xëy na la circuler euh, am na kii wax sànq président garage bi nekk foofu nee na dañ ne ko na fi oto yëpp jógee. nous ah, ñu dindi auto yëpp dégager leen parce que comme li ma wax président Macky Sall dafa ragal dafa ragal ah euh Hadj Omar li merci beaucoup merci ci encouragement ragal na euh, woné nak tay ni ragal na on a vu un président très affaibli très affaibli malgré les toutes les circonstances ak luñ la mëna wax ak luñ la mëna wax euh man li ma gis moy président bo xamné euh xelam dalul voilà xelam dalul fitam dalul

voilà bu doon bu doon lamb la la ma ngi ci trois appui quatrième bi nag soit dañuy tok diko sétane ba mu jóg ah defarwaat parce que c'est un fan politicien defarwaat taxaw wala dañ ko fay fekk euh, quatre appui quatre appui ko combat bi jeex mais en tout cas euh, lima ci mën xam dal moy liñ ci jangat moy loolu moy c'est un président dému diminué c'est un président affaibli c'est un président qui a peur voilà qu'on a vu aujourd'hui c'est ça qu'on a vu parce que parce qu'un président qui a lu tout seul se résume à l'État vient dire que solution yi ma am pour yéen mu ne mu ne mu voilà euh, euh, li ma am daal mooy ma def ko département mais dans l'immédiat l'immédiat là dinañ jox DG bi euh, ay sunu ay milliards à nouveau DG ONAS bi dañ koy joxaat treize milliards il muy alloué waat loolu itam il ci taxaw tuuti rek am lu ma demandé itam askanu Sénégal am nañu ñun ñëpp suñu naqar suñu xalaat ci député Sénégal yi ni ñuy doxalee waaye nag ay la yewen nit ki bu fekkente ne itam doxalinam doyu la mais mu am as tuut li muy jéem da koy fekk si ci li muy dem dimbale ko ci parce que li tuut as tuut li ñu am ci ay député jéem nañu tey demander assemblée nationale na woo ministre yi nga xam ni ñoom ñoo compétent muy le groupe euh, démocratie et démocratie euh, le les libéraux la hmm, groupe parlementaire bi fa nekk mais assemblée nationale bañal leen ko mais loolu askan wi foog ngeen ni assemblée député yi la yooyu la yàpp wala assemblée ñun leen yàpp ñun nag mën nañ nangu président Macky Sall yàpp ñu parce que moom moo yor police yor gendarmerie yor lépp mais mais Moustapha Niasse ban ci ban loi la mën a teg moom yàpp yàpp askanu Sénégal ba député yi nga xam ne askanu Sénégal la ñuy liggéeyal ne ko ministre yi nga xam ne dañoo am ay compte ñuy rendre ci inondation dañ leen di wow fii mu mu lànkal leen ko mu bañal leen ko te dara du ko ci fekk mais il faut aussi que les députés malin leen encourager nous nañu li ñu def c'est acte bu mais nous pousser acte bi plus loin pousser que plus loin moi nous demander la démission ou l'expulsion même du président de l'Assemblée nationale bu ko nous organiser des marches à ce fekk fait parce que yow yow as nous, li ñu am nous, ay nous, ñu ngi nous, nous, nous, nous, lu ñu ngi nous, déposer une motion nous, rejeter leen ko comme ça nous, nous, teg ko ñu tek ko fan ñi ñoo yor ñoo ñoo askan wi lañ fi nekkal inondation am na sept milliards génn na xamuñu fu mu dem dañuy laaj ñu ñëw leeral mais loolu bu ko assemblée bañee bañ bañalu ko député yi de attention bañalu ko libéraux yi bañalu ko groupe boobu xam nga ñu ko bañal askanu Sénégal la bañal leeral donc il faut que askanu Sénégal xam loolu askanu Sénégal pare itam jóg mobiliser wu ci ginnaaw groupe euh, ci député yooyu ba pare itam ñu ko eh, Moustapha Niass ah Eva loolu mënul nekk Moustapha Niass il faut mu jóge fi il faut que député yi def une motion def un combat de principe aller jusqu'au bout jusqu'au bout parce que quand même nak nañu waxante deug dafa am lo xamantene dafa amul droit moom Moustapha Niass mu koy mu koy bañal ay député dafa amul droit mu len koy bañal mais ñun dal dañuy accepter président Macky Sall yapp ñu euh, président assemblée nationale il ñu institution yi ñi fi nek yëpp yàpp ñu ku jog dal yàpp sénégalais té sénégalais duñ ci def il faut aussi de temps en temps sénégalais di remettre sen bop en question voilà il faut ñu remettre sen bop en question parce que si on accepter rek toujours ne non loolu ñun suñu nekku ci parce que ñi ay député le sen bop bopp lañ fi nekkal mais au moins nous ngi et quel les peu d'action yi ñi tek su amul su amul appui des populations amuñu appui de, de, de, des Sénégalais derrière, mais ça, on, ils, ils pourront jamais réussir. Ils pourront jamais réussir quand dañuy toog ci assemblée bi noonu rek di dem ay bureau réunion ak dem ki ñëw ba affaire bi jeex après bu euh, beneen yoon mu ñëw donc vraiment nañu dem jusqu'au bout ah nañu demander le départ de Moustapha Niasse ah bu ñu jógee ci loolu ñu organiser manifestation parce que oh dafa war l'air leer dafa war a te benn yoon kese la ñu am bu ñu ko mën a laaj mu leer muy assemblée nationale dafa war a leer kon nañ nañ jóg vraiment ñu taxaw ci ñu loolu dafa jar euh, ñu ñu créer euh, ay manifestation pour loolu waaw parce que vraiment jar na ko ah désolé nag euh, gisuma deuxième bi ki waxoon léegi bëggoon naa xam li mu wax comme ça ma mën que ma mën que numéro am su ma ko amoon léegi ma ma ma ma jël ko mu dugg mooy ki joxe woon numéro 5 cinq pour wax ne dafa bëgg a joxe xalaatam dinaa ko dinaa ko doon bëgg a jël mu wax voilà parce que comme je dis rek ñi concerné ñoom lañ bëgg ñuy wax ñu euh, ñu wax ñu li nga xam ne moom lañ xalaat hmm? donc euh, donc loolu loolu la itam euh, xaalis yi ñuy joxe itam gis nañu wax dëgg yàlla askan wi war nañu xoolaat bu baax seen taxawaay war nañu xoolaat bu baax seen taxawaay parce que bu fekkente ne yow dangaa ne ci jafe da nga gis say mbokk sénégalais ñu ne ci jafe-jafe jafe-jafe di ñu nekk yàq seen alal yàq seen yàq seen i bagage ñi génn seen ay kër ñi toroxal leen yow nga nekk sénégalais ngay ñëw ñu lay mobiliser pour di la jox weccet di la jox di la jox di la jox euh, ay maire gàddu pour nga ñëw taxaw tàccul maire boobu mais ñun sénégalais war nañu xolaat suñu bopp. parce que ñi fa nekkoon tey ay sénégalais lañu ñi fa nekkoon tey ci suñu biir lañu bokk ñu dajale leen ñu nekk foofu xalaatuñu sax seen moroom yi nga xam ni ña nga ca ndox ma mboo moytuwul sax am na ñu ne ca ndox ma ñi fa nekkoon. gëm naa ni nag loolu mënul nekk parce que nit mënoo nekk ci ndox mi ak jafe-jafe yi ngay dem di ñuy accepter ñu lay ñu lay jox ay ay xaalis mais parce que ñi ma gis ñëpp wax dëgg yàlla gis naa seen jom seen ngor ñu ne ñoom soxlawuñu loolu yëguñu ko gisuñu ko seenuñu ko sax yéreem sax xamuñu nu mu mel ndax gisuñu ko soxlawuñu itam waxu département yooyu mu leen di wax ay duñu bokk ci Pikine loolu loolu yëpp ay politique politicienne la encore une fois président Macky Sall acte bu mu posé rek politique moom moo làqu ca gannaaw acte bu mu posé rek politique moo làqu ci gannaaw li du du du guleet mais aussi askan wi nga xam itam ñom lañuy jël di di di len fawee war nañu itam wax deug yalla gëna gëna yok sen jëk gëna yok sen jëk wa parce que bu joggé fi dina dem ci yenen dëkk yi bu joggé fi dina génn dem ci dëkk dëkkaan wax deug yalla rafetul ñu len di gis yeen sénégalais yi ngeen di mobiliser wu voilà ngeen di mobiliser wu yeen sénégalais yi rafetul Euh, xaaral na ma may kii ma jël ko rek tuuti parce que bëgg naa vraiment am keneen ku ci joxe xalaatam bëgg nañu vraiment yéen askan bi ngeen di ngeen di mobiliser wu. waaw ngeen di ngeen di bañ mobilisation yi du moins ngeen di ko bañ bu fekkente ne mënu leen mobiliser wu pour pour yuuxu ko mënu leen mobiliser wu pour pour won ko seen métit mais nge au moins ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen bañ di accepter ñu leen di dajale di leen jox ay weccit pour ngeen di ngeen di ko accueillir pendant ce temps là seeni moroom. ñoom ñoo nekk ci ci biir ndox mi di souffrir di souffrir vraiment war ngeen ko war ngeen ko bañ war ngeen ko bañ loolu image la yoo xamante ne euh, ñaaw na trop ñaaw na trop image yooyu ñaaw na trop wax dëgg yàlla dëgg yàlla image yooyu moom ñaaw na trop trop trop rafetlu ko benn yoon rafetlu wuñ ko benn yoon di ko gis yoon suñu sago du ñu gis loolu na koo gis ku ne am nga am nga ku am nga ku ko faral ko gis am na ku ko faral donc seen mbay Diop ñu jël la hmm? nit ko gis am na ku ko faral mais nag jamono yi nekk nii moom du jamonoy far parce que nit ñi nekk ci jafe-jafe nekk ci guuta kon wax dëgg yàlla war ngeen rus ñu leen di dajale di leen fay ngeen di taxaw alors que seen moroom yi ñu ngi ci ay jafe-jafe loolu war ngeen war ngeen ko bañ euh, salaamaaleykum sëñ bi euh, xaaral ma yokk waa voilà yaa ngi ci biir live bi.

bu ko defee ñu ne déplacé wu na et mu def ay discours am parce que boo jógee dëkk ba dëkk moom jël arsenal euh, police bi yëpp jël lépp luy armée mu wër la te ñemewoo dugg ci biir askan wi loolu tamit euh, am na lu ko gën. voilà donc loolu itam am na lu ko gën bu fekkee dafa war a am ñu mu recevoir ñu mu jox dara na leen recevoir jox leen dara bu jógee déplacé wu dañu yaakaar ne ci askan wi la war a dem kon yéen ñi nekk Ndar. yéen ñi nekk euh, Ranérou yéen ñi nekk Kaolack yéen ñi nekk ci ci dëkk yi nga xam ne yépp que yéen am problème Tambacounda Ziguinchor yéen ñooñu ñëpp itam wax dëgg yàlla euh, euh, taxaw leen di ko xaar ah tout changé leen ay méthode bu fekkee ne du police duñ leen may ngeen génn euh, ngeen bind ay ay ay message ah def ay drapeau seen le fond ngeen def ko ci ci ci ci ci ci garab yi def ko ci def ko ci buntu kër yi ah jar na sax ngeen peinture seen message yi ci ci kër yi et itam ngeen dem seeti seen maire yooyu ak seen ak seen représentant yooyu fa nekk pour xamal leen ne leen bu président Macky Sall ñëwee ñoom ñu làqatu ci ginnaaw président Macky Sall tamit ba tëju ak moom ci benn bâche ba ñoom gisu leen leen ñi ngeen def tey maire Kër Massar bi mun ngeen leen ko def mooy bu président demee ngeen yuuxu ko uye ko ba jarul dara xam nga loolu dara jaru ko yow président ñëw nga làq ko muur ko mu ñibbi yóbbu police am ak gendarmerie nit ñi yuuxoo la yuuxoo ba taxawoo fenn tey maire Kër Massar bi loolu lañ ko def donc yeneen maire yi bu yeboo ngeen xamal leen loolu voilà euh, ngeen xamal ce xamal ni di ni def di di def di ah, di toroxal continuer pour commencer dès demain dès demain ngeen commencer di bind di di wax ci presse bi ak ci réseaux sociaux surtout ci presse bi ngeen demander que le président ne vienne pas vous voir parce que bu fekkente ne dafa vous ñëw Vous ci leen te du ngeen ko gis du ngeen ko vous du dugg ci mi du bokk euh, problème mais dem bàyyi ko bu fa bu fa il faut demander tout simplement que le président s'il doit venir faire des kilomètres des kilomètres pour venir jusqu'à Saint-Louis pour du ngeen ko gis ngeen di ko setaan ci télé bi comme sénégalais yépp na toog soxlawu leen ko bu ngeen ko da ngeen a bëgg mu ñew duggu ci ndox mi tak ay botam dégg nga bu ko bu bëggee sax mu def combinaison de pluie mais na duggu ci biir ndox mi na gis li ngeen yàqule nga gis seen ay rangooñ na gis seen i mur yi daanu na gis seen kër gu seen i jafe-jafe na ko dund ak yéen bu ko defee au moins bu ko fajul ci saa sax ngeen xam ne au moins moom président wàcc na àndam fekk si leen mu seen xol yi sax mën a mën a mën a féex tuuti su fekkee mënul def loolu jarul mu di fa ñëw di gisee ay mair télé yi di ko wane te yéen ci seen jëmm bopp gisu leen ko yéen ci seen jëmm bopp gisu leen ko warul leen accepter loolu parce que euh, campagne électorale bu jotee da ngeen koy gis ñii ngeen koy gisee jaxran ni ngeen may gisee nii ngeen koy gisee waaw day taxaw def ay mbaxaneem def ay fañ-fañ-fañ wàccaacaa dégg nga euh, euh, ngeen ngeen di ko setaan ah, def ay gestam am non léegi da sama live bi dafa war a dagg ah xanaa ngeen jam cee jàpp rek di yónnee ay ay message balaa muy dagg parce que là ça failli couper voilà donc vraiment Euh, je pense que coupe bi ba mu coupé moom dafa baxone parce que pare pare n'a hmm? pare naa pare woon naa quoi kenn rek laa jëloon sank mu wax donc vraiment euh, accueil euh, il faut préparer l'accueil comme il se comme il se doit dans le sens où on n'est pas en démocratie donc vous ne pourrez pas def ay brassard rouge ni yuru ça c'est sûr que duñ len ko may mais au moins moun ngène dem ci sen ay maire yëglu ni bu fekkee euh, de déplacement yi le président Macky Sall di def yeen ngeen remercier ko jaru ko wa parce que dal euh, choono bi ngeen ci daj fay metti torop wa parce que bu fekke bu ñu dañu seen biir kër yi du ngeen genn du ngeen dem du ngeen ñëw ah ba pare ngeen nara nek ci ay jafe-jafe toute la journée te du ngeen ko gis kon ça ne vaut pas la peine ngeen di tok diko ko xaar parce que yeen a ko doon xaar légui yeen ñi koy xaar gis ngeen limu woné Kër massa bu fekke loolu la leen nara indil ca Ndar war leen koo indil euh, euh, ci Ziguinchor indil leen ko feneen kon na économiser euh, suñu ma suñu gasoil boobu ak suñu kii boobu ñu def ko ci moto pompe yi ne fii génnee ndox mi moo gën moo gën bu fekkee nag bu ñëwee dafay dafay jàkkaarloo ak yéen ok amul problème hmm? voilà am na tamit sànq ku ma dégg muy wax ne dafa dafa xalaat ne élection maire yi kañ lay am loolu itam ñu ngi ciy xaar askan wi parce que waxtaan bi yépp bare na Euh, euh, dialogue politique bi dialogue euh, commission politique ñu ngi ciy waxtaan hmm? ñu ngi ci ñu ngi koy état bi bugg ko def daf ko bëgg a toxal mais li nit ñi di dund nii war naa mën a tax askan wi taxaw fipp par force élection maire yi am ci lu mu gën a gaaw parce que boo yoree sa maire liggéeyalu la jàpp naa ni waroo xaat kenn di la wax kañ nga war a changer maire boobu yow ci sa jëmm boobu yaa ko war a exiger voilà ni nga ko war a exiger nag mooy vraiment di def ay ay ay sensibilisation mais aussi di def ay manifestation di def ay manifestation manifestation dañ ko boolee ci suñu démocratie dafa bokk suñu constitution les droits les gens ont le droit de manifester leur point de vue voilà euh, malgré que mën nañu def lepp légui ñu ngi def lepp avec les gestes barrières nit ñaa ngi takk seen masque nit ñaa ngi raxasu kon nonu ngeen koy défé rek di di daw ci corona bi di ko def ci lenen nonu ngeen wara a continuer euh, di ko def tu ci manifester tu porter des combats des combats citoyens des combats patriotiques pour avancer parce que nous, nous tous toog rek qui ah, personnes des groupes ay partis politiques sociétés civiles. société civile ak ñeneen di gens des ne dafa am di xaar ay arbitrage yu président yéen askan wi mën ngeen teg ay jalon yoo xam ni mooy tax ñooñu ñu dooleel ñu dooleel leen man de duma ci tàyyi duma ci tàyyi euh, xam naa ni du sama ñàkk jot du sama bare jot wala suma suma bare wax mais dafa am loo xam ni rek euh, dañ koy wax def devant l'histoire euh, dañ nga ko topp nag dinañ ko topp kii bi yëpp xaw ma visite nu mu koy waxee tournée économique bu soobee yàlla étape yi mu def yëpp dinañ ko topp leeral ko nit ñi xamal leen ko Euh, retenir rek ñu résumer c'est un homme qui a qui a beaucoup diminué euh, qui a peur qui euh, nga xam ne dafa ragal le askanam ak quoi xam de dafa wàññeeku loolu daal lañ gis ñoom ci première étape bi moom loolu lañ ci gis loolu lañ ci gis ku xam ne vraiment vraiment amul assurance bi mu bi mu voilà loolu la am gis nam na sax ba ne moom munu ci dara munu ci dara dafa mel ne mbir mi mbiru yàlla la moom moom daal munu ci dara donc Euh, euh, kii foog naa ni ku ko dimbale mu jël dimbale ko nag mooy wan ko yoonu euh, yoonu génn bi porte de sortie bi parce que nit léeg-léeg nga dugg ci loo xam ne da nga ciy sore ba dootoo dootoo mën a dem te doo too xam mm, yoon bi pour nga def demi tour nga bañ a réer donc askan wi comme jéem na jéemoon nañu jëlee ko fi mënut nekk tey xëy na dafa bëgg ku ko dimbale mu mu ba mu arrêté mu bàyyi mbaa mu mbaa mu def leneen loolu tamit suñu taxawaay rek ci lay ci lay ci lay génn suñu taxaway ci lañuy xam paré nañu pour accompagner ko ci bép buntu bo xam moy abrégé abrégé su suñuy souffrance lépp lo xam dal daal mën naa tax souffrance askan wi gàtt paré nañ pour def ko donc euh, ma ngi yemalé fofu wax bi di len jox rendez-vous nak dig dajé ci weekend bi inshallah il faut ñu waxtaan parce que li xew euh, ci réew yi ñu wër euh, daf ñu concerner euh mënu ñu ci ñak wax am na lu bare nak lu fi jotta xew euh, ci live boobu inshallah dina len ko leral donc ma ngi nuyu ñepp di len remercier toujours ci teewlu bi ngeen di teewlu encouragement yi ngeen di def ci souf ak euh, ñaan yek ak euh, safo bi jërë ngeen jëf merci beaucoup